Euh, di nga soxna si. Mhm. ba ma déggee ngeen di wax seen recensement yooyu. Mhm. Euh, seen affaire recensement bàjjenu gox yi. man si laa xam ne gis nga quartier bii ñu nekk nii quartier bii muy daal Rahman. Mhm. amul kenn ku fi gën a doon jongama kii. ku ko fi gën a nekk kilifa. man jamono jee ngay gis am naa fi problème ak sama jabar. moom moo ko lijjanti ba fi mu toll kër gi. ba si fi mu toll nii kër gi. Euh, lépp jàmm ak salaam. waaw mm-hmm. ndax fi mu toll nii moom mii rek laa fi gis nii moo fi mën a gérer bàjjenu gox bi mu mën a dox normal kay. ma ne bu ñuy koy naree jox kenn ku ñuy jox bàjjenu gox yi nañ ko koy jox moom ndax yow yokk na ko ah. waaw ñun de ah. bu ñu gisee suñu gox gi ku ñu koy defaral. mu ngi nii de. nga ci def lu nekk di ci wax lu nekk mm-hmm. Mm-hmm. dañ lay sant di la gërëm mm-hmm. bàjjenu gox bu ñu ko defee ci koñ lii rek la fekk luy waaj a tas nga defar ko fekk luy waaj a fecceeku nga fas ko ba mu dëgër ba kenn du fa ñemee aw noonu la fa nekkee ñu ngi ñu ngi kontaan ci yéen nag bu baax kontaan nañ bu baax Moussa le maire dafa yónni ndaw te maay ndaw la dëgg la mu ngi nee na kontaan na daal ci yéen li mu ma wax yëpp pour ma wax leen ko su ma leen ko dee wax du ma fi jug dëgg la Mom, gërëmam exi na ci yeen mhm. waye man sama geureum mhm. man mi nga xamni man lañ fi fal pour ma xol baaje lu yi li ñuy def ci dekk bi mhm. kontaan na ci deug la deug la parce que ñun suñu taxaway moy lepp luñu mëna am rek ñuy defat di fas baña a ah loolu la fi nekké ñu koy sant nak di geureum gërëm ah, kay monsieur le maire lay sant di la geureum rek la la monsieur le ma sen pay benn yoon loolu rek la la wax ah monsieur le maire kay waxuma loolu ah. ndax ñu yëngu ne lu nga la kay nga la gëpp doole loolu deug la loolu dëgg la ginnaaw ba seen daf neex ah waaw waaw waaw waaw waaw ma ñëw ngeen accueillir ma ah, waaw waaw waaw teg ma fa ngeen ma war a waaw ah, waaw ndax xane fa yi ngay gis gëj naa génn ci dëgg la gëj sant ak ngërëm nag ah, waaw waaw waaw musale bu mm. dama koy wax ba noppi door a wax nag li nga xam <laughs> waaw waaw waaw moo yëkkati tànk la dëgg la dëgg la dëgg la mm. dañoo xaw a rek de mm. jox ko rek jox ko ko comme borom jox ko rek moom nañ ko waaw kay nañ ko torop kay jox ko rek waaw ndax ba ngeen ñu mm-hmm. ñun rek lañ bëgg te mm-hmm. lañuy wër mm-hmm. nañ leen jox lu ëpp lii. léegi nag euh, xam nga fi ñu toll mhm. mu ngi guddi. kooy kooy kooy. naka. benn baat. waaw uy ma uy ma dañuy réunion dañuy réunion. <laughs> demal nga toog ne ba ci ka ba ñu pare. yow laa waxal waaye ko rek fekkee ka ci boole. yow laa waxal benn baat. man ci kër gi yaa dëkk. ci kër gi yaa dëkk waaye xam nga ne seize yi musul génn. Ah, su rek xam nga ne réunion bu wóor a tax mu génn. da nga génn nii. waaw yii ñoom boo amee suñu ñëw ci la bokk ah waaw déedéet nag lii bokkul ak réunion xale lii réunion mag la. léegi mag ñi buñ dee du xëy ñoo fi def. waaw ñaanal ñu jàmm de nga day ah, ñu léegi nag comme comme demee na noonu. Mm. Euh, xam naa ne duñ la fi téye téye bu yàgg. Mm. léegi xanaa ñu bàyyi ko rek. comme moom may ba ba bàjjenu ko. Mm. mu sànni i ay kàddu rek ñu doog a yeewi nag jotaay bi. waaw kay gannaaw bañ sant yàlla eh, eh, eh, waxuma la yow doo bàjjenu gox bàjjen ak su mbay mii laay wax doo bàjjenu gox bàjjan bi ko bisimilah gannaaw boo sante yaay waxuma la yow bàyyi na ba doo dégg benn baat bu bu yàqar yu ñëw. waaw bàyyi ko fekkee ko ci boole. léegi mu tey dama ne du fi waxee na may bàjjan Assou Mbaye miy wax. waaw kon nag kay waaw kay. di sant sama njëkk di ñaawal ji. dëgg la waaw waaw waaw waaw. di yaay maas waaw waaw waaw. waaw dina dina sant yeeg sama. papa maas an sa papa an sa papa. ñu ngi ci biir. waaw kay yeggali bàjjan Massouma. waaw kay waaw kay waaw kay Massouma. Mm-hmm. waaw di rafetlu loolu nag yéen kontaan naa trop nag yow it. Mm-hmm. Ah, sama mbokk moom xale bu jigéen bi. Mm-hmm. ndax xam nga ñun kat ah, jigéen amuñu lan la dul suñu sax. jaay bi jaay benn baat. déedéet da kay nax. benn baat boo fi naree nekk di béddi ba réunion bi fii laa lay teg ah. ñëweel mi ñëweel mi. non ay ab yow yaa. waaw kay non ay ab yow yaa. yeggali bàjjan moo tax may bañ muy toog di def yàq. asuma yeggali. oui oui oui. waaw di rafetlu. ndax xéwal gi ñu indi nii tey. rafetlu nañ ko lool. waaw te ñun xam nga ñun jigéen ñi ku ñu defal yàlla sama borom lay fay. yéen yéen yéen ma ma yëg papa ma tey tey yoxu kii sax papa ya. dana baax dana mënul bàyyi sunu réunion. yooyu teg di yooyu teg di bàyyi kii sax papa ya. xooy xooy góoyu góoyu xooy. kii mooy sa góor. góoyee góoyee xooyee góoyee sa papa yow xale bi wuti bi yow xale bi wuti bi sama mosoon ki xale bi. Moussa da ngaa fàttee watu Moussa. ma def nii ba pare. da ngaa fàttee watu Moussa. maa ko moom damaa ko fi indi woon. fi njëkk ak teraanga jël naa ko. ndekete yow ab client bu ngandal la. xam nga boobu ba léegi maa ngi naan sa doom bii ab dof la. ndekete kii dof yow mi yaay dof. ki doon def moo tax mu tiim foog ko jeeg naa kan kii sama papa la. ak say ween ak say ween xoolal ak say ween nag ni ñàkk na manqué ni ñàkk na weesuwul nga tiim sa doom naan kan man jeeg yaa manqué. waaye soxna yow eh tëjal. dama ne eh lay wax. laay laay laay laay ni jaay maas ba borom dañuy mën a jooy dojam. yow xanaa guuñu kese bëgg lu baax bay wax. boo ko jooyee di nga gis li ma ci wéttal. Ah, ndax allégation amul laay laay. allégation bu amee nag. yow allégation bu amee nag yow ab triangle laa rek ngay waxal nag lu leer laa lay wax. eh ma ko baax nga ñàkk fa wéy. ansay weñ ansay weñ. waaw man ban kër lañ ma dugal nii. ndax kër gi am na ci jamono bi. am na kër yéen ay triant ngeen. parce que triant bu bon nga yéen nag ni waroon na leen fekk ngeen nekk ca jàkk ja fas yéenee lal malaanu wasifa tudd yàlla sàmm xale yi wax li leen yàlla wax. waaye ngeen toog fii naan da ngeen di triant de triant yi boni ngeen doon war ngaa toog fii sa doom bi la joxe nga naan kàddu bu ñu ci xasaa bàjjenu gox xasaa biiru bàjjenu gox xasaa bu ñu ci xas yaa tax ñëpp bañ njaxas bu ñu ci xas triang yi ngeen doon biiru bàjjenu gox xasaa ma tey jox ma eh, tey fal ngeen fal ko bu ngeen ko mënul fal ngeen bàyyi ko mais yow tam Moussa yow tam nag man calculé woon naa ne sa kanam mu rëyee mënoo ba doon bàjjenu gox bu fekk lu rëy lu ngay tudd luy tudd ay bari on nga dëgg nag yooyu yooyu mooy sama problème man yow dooma raam nga sa jaar bu yaab

Ya, ya papa ya ko, jadi itay. Tumakar lang ako man lang. Ay, kimabag, karaki, kimabag, kimabag. Papa ya ko, jadi itay. Kimabag, kimabag. Bimay nalaman, tumag gumarek. Gumarek. Dekan sa mo chonjo like pistol. yomb bopp ba léegi maa ngi ndax seer li nga am taw lu ko raw laay am ren booy sama doole job gañ pain li ma am ay volcan ba may jaay tàng loolu safewul dafa tuma rab pour